mu wax fii ci course bi moom sëriñ Cheikh wax ne sëriñ Babacar bu ma neexee ma ne du sama séri ndax fañ ko joxe lañ ma joxe ma teg ca ni dëgg la parce que turandoom moo ko defar réservation ma ni waaye mayit bu ma neexee ma ni moom it du sama sëriñ ndax fañ ko defele réservation fa la ma sëriñ Babacar defele réservation mu laaj tey nag parce réservation mën na am confirmation mais mën na nekk list d'attente moo tax bu nekkee liste d'attente yow nga xër ba confirmeel boroom mën nga ko xaj ba abadan moo tax bañ di xër ba mu ëpp day tey baax dafay am ba ci ñi war a wuy ji seen boroom wara a dem barsax ñuy dem ba ñu yore programmation yi programme ba noppi waxtu ba jot te nit ki du wuy ji boroomam fekk booba am na lu leen yàlla waxul mooy dafa nekk liste d'attente kon nag fantadiru inni maakum min al muntadirin ci yu mel noonu ci les complications yu bari di amee moo tax comme noonu ngeen ko tudde ci check point céleste yi bu ngeen seetloo atam ci université Ramadan fële ca al irshad doon naa leen expliquer sentinelle yi nekk ci alquran xëy na ñun sentinelle lañ ko tudd yéen ngeen tudd ko checkpoint alquran am na ci téeméer ak fukk ak ñaar selon nisaar yi dikkee loolu mooy tax boo amul seetlu ci yonent bi ni muy waxe dafay am lu lay rëcc ndax la mu jële foofa ca kaw ak liñ ko wàcceel ci suuf dafay am lu ciy wuute boo dul xam cadre amaanaat yi al amaana al kulliya ak al amaana al juziya doo xam ñi yàlla am ci kaw suuf ku ci nekk li mu ci yenu lan la yaakaar naa dem ngeen ba tudd baatu onde yi waaw ma gis mbokk mi traduire ko ci al amwaaj ak al asda waaw maanaam onde yi ak écho yi mais fekk na onde yi dafa am onde yu positive ak onde yu négative yii ci nit ñi la nekk yi nekk ci jinne yi loolu mooy tax dem ci mbooloo kese kese noonu te amuloo garanti wóorul ndax onde yooyu nga dul xam fu mu toll bi ci des mooy dinañ ko tudd mais longueur d'onde yi foofu la problème bi gën a posé wu parce que moo indi woon coow yonent yàlla Daawud ak Suleymaan parce que Daoud moo jur Suleymaan ñoo bokk sax ci onde yu ñuy émettre mais seeni longueur d'onde bokkul looloo tax fa fahamnaha Suleymaan wa kullan aatayna xukman wa ilman bi ñu demee ba Suleymaan di dégg lu Daawuda déggul Daawuda mënu ko woon muñ mu soppi affaire ba xuloo xuloo ba yegg na ci wax yonent yàlla Suleymaan ni ko xaalis bi fi nekkoon yépp fooye nga ko ndax sa coro yi walla lu toll noonu ku day ni Suleymaan bàyyam bi ko jur di ko wax ni ko xaalis bi fi nekkoon yépp fooye nga ko ndax sa coro yi te bi mu koy wax loolu booba Suleymaan mu ngi yëg ni baayam Daawud tëdd na ak doomam te mu am lu mu rus tax waxu ko ko xoolal loolu ndax dafay am ñu nga xam ni dañuy defa ni seen doom waru leen raw moo tax ñu nit léeg-léeg ma tooñ capitaine ni ko beneen yoon booy inscrire dema boole ci ñi ngay inscrire mais waxin la waaw pour encourager ki nga am rekk waaw ndax léeg-léeg ma wax ko dara bu ñëwee ci man ma ni ko li ma la wax exigence la waaye du confirmation loolu mooy tax yonent bi baat boobu mu wax nekk baat bu jaaxal ñu bare te mooy dafa wax ni alquran ak nit ay frère lañu ah mu am ñu mu jaaxal ndax alquran dafay liyaar te nit dafa amee làmmiñam di wax soxlaam kon bu ñu dee ñaari freer fokk ku am ku dox ci diggante bi looloo tax sunu boroom nangu pour nekk arbitre ci seen diggante arbitrage ba moo tax mu wax arrahman allama alquran xalaqal insaan allamahul bayaan waaw ñaari frère yu war a ànd te seen déggoo yombul yàlla nee na kenn ku ci ne lay tax ngay jubóog sa moroom def naa ko moo di alquran jàngal naa ko buy liyaar nit ci ban logique lay defe liyaar bi waaye nit jàngal naa ko buy wax ak alquran ci ban logique ci lay waxeek alquran waaw bu ko defee seen ànd dafay daldi yomb loo tax sunu boroom di wax ni bu ma dëppalewul woon seen xol ñoom ñaar kon ànd bi du ma nekk te kon li taxoon may bind dootul am sens waaw bu ko defee kon nag alquran ak ay condition waaye nit ak dimension muy laaj nag ñoom ñaar ñuy échanger am na fu ñuy yegg foog nit bàyyi alquran mu régleel ko problème yi mais am fu ñuy yegg foog alquran bàyyi nit mu régleel ko problème bi looloo tax nga gis mag ñi di wax yuslax bil insaan ma la yuslax bil quraan waaw léeg-léeg nit dana régler problème boo xam ne bu doon alquran du ko régler waaw ndax alquran léeg-léeg dafay radical waaw ba logique bi muy utiliser bu amul ku taxaw pour rax yi tuuti rekk kenn du ko mën àttan moo tax ngeen di gis ni jawharatul kamal biñ leen di tudd nombre serrure yi ci nekk ak serrure bu ci nekk àkk caabeem ku ko topp ba àdduna bi tukki nit ñi duñu mën a génne li ci nekk lépp boo gisee muy tudd urushul xaqaayiq moom Seydina Cheikh uruusul xaqaayiq yooyu le alquran def ca am juróom moo tax juróom yooyu mu ca am waxuma la firi alquran waaye boo bëggee bindal nit téere sax te maîtriser woo urus yooyu juróom yooyu te juróomi urus yooyu le sa juróomi baaraam moo leen représenté waxatuma la nag boo ko bëggee firi te jëliwuloo yooyu looloo tax boo gisee ñuy bëgg nit di baril salaatu ala nabi moo di yonent bi mën ko di yóbbaale ci yu bare ndax am na ci lu nga xam ni jàng kese kese taxul nit di ko maîtriser di def salaatu ala nabi rek salaatu ala nabi rek mooy li góor gi nettali woon fii ci champ de course góor ga dafa togg ak ndongo yi di leen firil alquran ñëw ba ci aaya bi sunu boroom di wax naan kulla yawmin huwa fi sha'n maanaam sunu borom bés bu nekk ak programme ba koy préoccupé naka la yegg ci foofu moom sëriñ bi ndongo li daal di koy dog mu siggi xool ko mu ne ko mi yawmin huwa fi shaan aaye bi laa bëgg nga firil ma ko fekk sëriñ bi étudier wul aaya bi ba mu jeex mu xawa mel ni ku gàntal mel ni dafa xaw mere ndongo li ndax laaj gi mu ko laaj lu mu xamul waaye ndongo li itam ci wàllu discipline mu ni pat bàyyi ko mu yeggale ba ca ëllëg sa ñu amaat cours ndongo li jékki-jékki xool ko ni ko kulla yawmin huwa fi sha'na dellu si ca aaya ba sëriñ bi daldi siggiree ni ko sha'nun yubdihi wala yabtadihi maanaa yàlla amul dara lu muy tàmbaliwaat waaw li mu war a def yépp dajale na ko ba noppi day xaar waxtu wu nekk rekk la mu laaj mu wàcce loolu jox ko nit ñi bi mu ko waxee ndongali ndongali ree ne ko salli ala man allamaka ni ko defal salaatu ci ki la jàngal ndekete ndongole xam na ni yonent bi la laaj ci guddi gi pour mu sarax ko firil ko kulla yawmin huwa fi shaan yonent bi wax ko ko moo tax biñ ko ko laajaatee mu muuñ ni ko shaanun yubdihi wala yabtadi sëriñ bi ni ko kon nag ñun ñëpp nañu sukk def salaatu ala nabi ñu dikk ñu sukk def salaatu ala nabi ndax yonent bi moo leen gàgganti pour wax la am na lu nga xam ni dajale téere yi taxul mu sotti waaw baat bi ngeen di wax connexion du ko jóg rekk nga connecté wu ci moom waaw ndax am na ci connexion yu nga xam ni wifi bi muy branché nekkul fii Seydi El Hadj Malick radiyallahu dafay firi al Quraan fekk am na kuy ñëw di fekke ci firi bi waaye ndeke li muy fekke ci firi bi yépp li muy xaar mooy Maodo gàgg pour mu gàgganti ko bi Maodo di firi ba ñëw ci benn aaya wax aaya bi kooku soog a jóg nag ni ko li nga wax du noonu wax ko Seydil Hadj Malick mais Maodo merul te kat taalibeem yépp a ngi toog bi ko kooku ne li nga wax du noonu Maodo ni ko xanaa tafsirul Jalalayn ni nga yor mu ni ko waaw mu ko boroom dafa juum waaw mu jaaxle nag ndax ndekete yëf yi nekkul ci njàng mi yàlla ubbi la ki mooy tax nga xam li nga war a xam lan la waaw waaye ku nekk ak sa chance Serigne Cheikh def ñu koy nettali ndax dama xam ni domaine bi ñu war a dugg buñ ca duggee dëgg ñépp ni gàmmu gi neexul waaw ah, ndax fi nga dugg ñun xamuñu ca dara fekk c'est une façon de parler mënuma gëj ci daaw ba dellusi ren di leen wax ay kasaaba kasa waaw dama leen di mën a wax rekk laboratoire ba ma nekkoon waaw waaw laboratoire ba liggéey naa fa lu nga xam ni tey amatuma jot nit naan ma dama am problème sàngam ma naan ko kaay ma bindal la xaatim sàngam dañ koy dépassé waaw boo demee bouteille yaa nga fa bouteille bu ci nekk ak la ko tax a jóg ñu numéroté ko waaw ku roo xam feebar ku xelam feebar ku xolam feebar ku yaramam feebar ku ñu laal ci wàllu sexar ku ñu laal ci leneen ak leneen ak leneen la nga foog ni xëy na xëy na yàlla def na ca ndigalam bu jotee nga waslu ca àq rekk waaye du tax nga dog waaw ndax yëfu jaamur la waaw moo tax nag dama wax mbokk mi ku nekk ak la nga tollool waaye xam nga ni kii toog ñu ni ko basin mimara liif laam adam dellu miim del bàyyee kook loolu rekk ndax loolu la tollool keneen ku tolloog leneen waaw te mooy jëmmi basin mi mara waaw kin xamul lu ñu doon xoolal yonent bi ci li ngeen jàng ci seen taysir salli ala saajidin qabla alwara fa ala bi sabi miati aamin rabbi allahu yonent bi am na juróom ñaari téeméeri at mais ban at at yi du sunu at yi di sujootal sunu borom moo tax ma ne jullit yi nañu am fayda boo ëllëgee yàlla bëgg leen a lakk rek ñu ne ko waaw li yonent bi doon sujjóot kon ñu teg ko fan waxin la pour wax la degré sujjóot ba Hollandia lu waay jàpp na be